kuréel gi nga xamee ni moo lëkkale soxna yi nekk ci hôpitalu Matlabul Fawzeyni madame Mbakke soxna Jobbe Fall ak mboolem ñi mu àndal ñëpp sëriñ Mouhamadou moom sëriñ Dame Lo ma ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ndokkeel di leen cant cant goo xamee ni am na fu mu doore waaye amul fu mu yem dinañ ci ñëw ci kanam waaye nee na balaa ñëw ci yéen ak seen jëf ak taxawaay bi ak liggéey bi ngeen may ko mu nuyu kilifa yii ñu fi fekk te bu fekkan da ngeen ni Serigne Mouhamadou Lo moom lañu dara jaale wala moom lañu tudde bis bi kilifa yii kenn ku ci teew rek mën na koo yóbbaale muy ku mel ni sëriñ Ahmad Laat nga xamee ni teew na fi teewaay bu rafet te digganteem ak sëriñ bi du ñaari jëmm jenn jëmm la waaye ku mel ni sëñ jii ñang alquran min fi nuyoo léegi ku mel ni sëñ Muxtaar Lo mi nga xamee ni moo jiite l'hôpital bi waaye ku mel ni tam Serigne Saalihu Sàmb bi nga xame ni moo fi waxtaan waxtaan wu am solo lool di ndaw loo xamee ni àddina soxla na ko lu nekk mën na caa tàbbi ni ñuy lijjantee ba jëpp àddina xam na ko ndax la ñëpp jàng la jàng te néewul ay at te gàttul ab tànk waaye lépp mu teg ko ci suuf mi dann sëñ tubaa ak jaar-jaari jaar sëñ tubaa xam ni mbir mi foofu la nekk kon sëñ saalihu sàmb moomu euh, ñu xam ko bu baax fu mu teew kàddu yu mu fa yëkkati rek mën nañu ni mooy kàddu yi sëriñ Mouhamadou Lo pour sëriñ Saaliwu sëriñ baa ngi lay nuyu bu baax bisub tey bii nag dafa nekk bis bu am solo lool ndax bis la muy gënee moroomam mooy la ca xew fukki fan yi mujj ci weeru koor fukki fan yu jëkk yi di yërmaande fukki fan yi ci digg bi di njëggal fukki fan yu mujj yi di etun minan niiraan di ak goreel ci sawara ngeen taxawal lu mel nii ci kër Serigne Touba di waxtaane diggante Serigne Touba ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi moomu nga xamee ni moom la sayidna Muhammad moom la Serigne Touba waxal ni muhammadun sayidi saadaati jumlatihim salla alayhi bi taslimin kama abida haada al aminu min al mawla nubuwatahu xitman wa adama fi silsaali qad lubida muhammadun xayru man yamsi ala qadamin muhammadun xayru man lillahi qad labida maak mahabbati al muxtaar sayidina xobbi al magaani wal ahli wal walada kookee fuñ ko waxtaanee tubaa def nañu lañu war a def kon sëriñ bi nee na ma ngi leen di sant ma ngi leen di gërëm nee nag yéen muy ñiy liggéey ci wàllu santé da ngeen di ñu jare bàyyi xel lool di ñu jare a ñaanal lool ndax li tax yàlla indi ñu ci àddina bala ñu koo man sax dañoo am wér yaram te sunu wér yaram ci seeni loxo la ko yàlla jaarale muy jaamu yàlla doomu aadama balaa mën a liggéey dafa am wér yaram balaa mën a jaamu yàlla dafa am wér yaram ngeen nekk secteur bu doy waar bu metti lool ñëpp soxla leen te kuy ñëw ci yéen yàkkamt ak yitte moo koy indi te bu dikkee si yéen itam ñu mel ni ñoom la fay fekk waaye yàlla defal leen ak dal yàlla defal leen ak mat yàlla defal leen ak xam doomu aadama ba ku ñëw ngeen xam na ngeen di waxee ak moom xam na ngeen di doxe ak moom loole yàlla na leen si yàlla gën kàttanal képp ku xam am réew faaw mu dox santé ab cër képp am réew faaw mu dox santé la mu moom te yéen seen taxawaay rafet na ndax hôpital bii li mu yenu ku ne xam na ko kon bépp jigéen wala góor gu fa nekk di liggéey ku jar a sant la ku jar a gërëm la ndax mën nañ ni euh, région yi ko wër yëpp si lañ jëm di si yéen seen taxawaay itam mat lool yàlla na leen yàlla gën a kàttanal yàlla na leen yàlla gën a sàmm yàlla na leen yàlla gën a aar ba li ñuy séntu ci yéen ñu gis si lu kawe seen jort kenn ku nekk ci yéen day comportement may na ko mu nekk Tuubaa ndax ci ngeen di xëy ci ngeen di gont sëriñ bi nag nee na moom la ngeen xam ne woon démb ak barki démb ca la nekk jàpp ci yàlla ak yonente bi ak sëñ Tuubaa ni kat yiw ci alquran di fi xëy di ci gont amul benn bëgg-bëgg bu dul alquran amul benn bëgg-bëgg bu dul xasida waaw kon ni nga ko waxee woon euh, ñun bu njaboo ñu ne liñ bëggoon ñu am nañ ko buñu amul lépp am na luñ ci am ndax dèjà lii nga xamante ni moom lañ def tey mu dajale ñu fi muy conférence ku ko xam-xam ni wootee dafa metti te boo wootee ñaar ba ñett wuy si rek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 damay delloowaat mbir mi fa nga xamante ni fa la jóge woon ñoom ñu xool ba xam ñooy tabaat wala dañu wut keneen ku bees waaye man moom sama mandat fii la yem ci conférence bi ni samay trois ans man sant naa ñëpp gërëm ñëpp raw na sama membre amical bureau bi ñoom ñëpp maa ngi leen sant di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla sant naa ñëpp alhamdulilahi rabbi alamin merci beaucoup jërëjëf